Aïda Sy Aïda ñu ngi lay nuyu. Sëy Aïda Sëy plutôt pourtant loolu laa bind waaye temps yi sama xel bi neexul damaa mel ni <laughs> kii kay def lu juróom-ñaari xulwa te lay yombul nag di publicité yi jàll léegi def. <laughs> ñaata saar nga tari. <laughs> elle a eu tellement peur. waaye Pape comment on prépare ça. rek nan lay def c'est première télé. télé yombul de. <laughs> bienvenue da nga ñëw pour waxtaan ak ñun euh, ci événement wu samedi bi. ak complexe Salar ngeen tuddee ko Solimode. Solimode ah Solimode nag c'est la mode. Mhm. au service de la solidarité et. Euh, du partage. D'accord. Voilà, en fait euh, man dama fi nekk tey comme chargé communication wu complexe Chalar. Oui. Et Chalar ñëpp xam na ni que dafay yëngatu ci affaire u ñaw. Voilà, affaire u mode. Mhm. ah Marème Chala donc moom toujours nag su ay euh, défilé mhm. def see profité di def solidarité di jàppale nit yi. Mhm. Euh, di jàppale surtout waa INEFJA. Mhm. donc mooy école des jeunes aveugles bi nekk Thiès. li nga xam ne d'ailleurs dañ ko jël def ko marraine. Ah. et atum ren nag mu ci boole aussi daara Alaaji Mohsin Diop bu Saint-Louis. donc 2015 dafa tombé ak dixième anniversaire u complexe Chala. ak mhm. quatrième édition Solimod. Solimod depuis quatre ans yéen a koy def naka lay demee d'habitude fonds yi ngeen di am euh, euh, ci guddi gi da ngeen koy yëkkati ngeen dem jox ko ay nit c'est ça. dañuy jàppale waa UNEFJA. Euh, d'accord waaw d'habitude UNEFJA daan jàppale. Mhm. sunu édition bu mujj bi d'ailleurs jàppale nu UNEFJA si valeur bu trente dix-sept dix-sept millions. dix-sept millions 17 millions oui donc ak ay électroménager ay matelas vraiment dañuy xool en général a grève parce que souvent dañuy bëgg euh, ñu jàpp ci bu baax euh, et c'est important surtout que école la boo xamante ni ay diplômés ñoo fay génn donte ay ay ay ay ay ay silmaxa lañu tout à fait mm-hmm. tout à fait mais en fait il faut que ñëpp mën si jàpp aussi parce que état l'état ne peut pas tout faire voilà il faut que ñëpp jàppale si jàpp si mm-hmm. et nit ki nag si li ngay liggéey rek nga mën a profité pour jàppale nit yi voilà donc euh, xëy na bii moo gën a fees mm-hmm. mais Mariem moom du jóg ci di jàppale nit yi voilà du ci jóg muy si période défilé yi comme mhm. en dehors des périodes de défilé mhm, mhm, voilà donc euh, d' accord léegi programme bi nu muy demee samedi alors samedi euh, am dîner de gala King Fahd Palace Palace mais avant dîner bi dañu def remise des dons Euh, euh, l'INEFJA ak euh, daara Alaaji Maxsine Diop bu Saint-Louis mhm. sëñ Maxsine Diop et bu nga xam ne génération yu bari jaar nañ fa daara ji nag ñoom dañ ko commencé woon tabax taalibe ñoo ko commencé woon tabax mhm. mais jotul yegg mhm. donc danoon def remise des dons yi buñ si jógee donc commencé dîner bi ensuite am na ay spectacle Euh, normalement dina euh, Abdou Guité moo wax waroon na ñëw mais malheureusement dafa am empêchement. Mhm. Euh, Adjouza dina fa nekk. Adjouza xaritu Mariam la xaritu Mariam voilà. dëgg la ñoom ñaar xaritu <laughs> Wally aussi. dina ñëw Zula. Uh-huh. et euh, d'autres invités surprises. d'accord voilà. alors euh, euh réservation yeeg pour xarit ci ko bëgg a pour jàppale surtout euh, ñi ñu bëgg a jàppale ci euh, guddi googu. voilà alors képp ku bëgg réserver. wala nga bëgg def sa loxo ci événement bi jàppale nu mhm. da ngay woote au 77. 551 10 31. d'accord voilà voilà quel sera le message bu complexe Chalar en attendant bis bi guddi gi surtout ci King Fat Palace samedi bi. alors complexe Chalar daf ñuy invité rek à rêver. ñun ñëpp a rêver d'un monde à euh, rêver ensemble d'un monde meilleur uh-huh. et surtout à aider les plus démunis uh-huh. et les plus fragiles d'entre nous muy les enfants di ci woo donc bépp sénégalais uh-huh. di ci woo autorités yi pour ñëpp ñu ñëw ñu jàpp ci ñu teew déjà et puis jàpp ci soirée bi. voilà voilà léegi képp ku ci bëgg jàpp. Mhm. mën nga nu woo si bureau complexe Chala. Mhm. wala 77 551 10 31. merci beaucoup Aïda. merci gis nga di méttiwul ah. méttiwul dara gaañ nañ loola <laughs> gaañ. Ah? déedéet déedéet yaa ñu gaañ non yow yaa gentil ndax boobu dafa bëggoon nga gaañ ma mais def nga lu baax. <laughs> voilà en tout cas ñun ñu ngi félicité bu baax Mariam Chalar ci liggéey bu rafet bi muy def euh, depuis très longtemps surtout ak événement bi nga xamante ni mooy Solimode donc ñu ngi leen di jox euh, rendez-vous samedi bi ca King Fat Palace euh, pour ñi nga xam ne ni ñoo bëgg jàpp ci liggéey bu am solo bi mais jàppale taalibe yi ak waa INEFJA defe naa sénégalais moom xam nañ ko ci wàllu jàppal ma jàpp solidarité ndax ñun loolu mooy suñu particularité merci beaucoup Aïda on pour